a en particulier, avec les professionnels si vous voulez le professionnalisme le confort la qualité et la sécurité venez voir notre agence immobilière prévision immo Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de Traoré l'homme fort l'agence Prévision immo est focalisée sur deux domaines à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière pour la transaction immobilière il y a la location la vente et l'achat concernant la promotion immobilière l'entreprise sera le maître d'ouvrage c'est-à-dire le réalisateur du projet kon ku bëgg a ak ñun defal 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix. Seydou Ndiaye maire commune de Souf du département Malemoda région Kaffrine. voilà monsieur Ndiaye euh, tay euh, ñu vous wax ñu tuuti rek euh, sa jangat ci arrivée Macky président Macky Sall fi ci région Kaffrine. président Macky Sall li mu def li lu rafetlu la dañ content kontaan bég arrivé bi ñëpp xam na véritable marée humaine mo fi am ñëpp a tertu ko ndax réalisation yu mu def ci Kaffrine bo seetee sphère administrative bi boo fa duggé tu as l'impression que y'a ngi Dakar wala yaa ngi Paris fi ci Kaffrine so jógee foofu l'université du Sine Saloum so jógee foofu nga dem ci centre de euh, centre yi mu créé fi nga xamné yi c'est pour la formation des jeunes nga jógee foofu nga dem ci euh, route yi les routes goudronnées

ba pare aussi nekk suñu responsable régional di nit ko xamné ki rassembleur la Ablaye képp koo xam ne rek am nga cofeel ci Macky wala nga wara motel moteel Macky yàlla na ko bañ Ablaye dina ñëw ci yow képp ko xamné ki même opposition té mëna mën a waxtaanee loo fexe ñëwaat ci benn bokk yaakaar Ablaye day liggéey loolu Ablaye day jappalé mairie financièrement Ablaye aussi day jappalé mairie ci lu bëré bëré bëri ba ci chef religieux aussi ba ci personne yi nga xam ne ñu nekk en difficulté mu leen di jappalé façon discrète ci loolu dama ko ci remercier félicité ko euh, bu loolu passé ñun jànki souf problème majeur bi ñu am numéro un su weesoo yoonu del bi ba Kaffrine di véritable casse parce que presque nawet bi kenn mënu fa jaar mais jànki moy l'une des rares communes du Sénégal et la seule commune de la région de la seule commune de la région de Kaffrine bi nga xamné bi ba tay électrifié buñ ko kooku handicap bu maga mag la problème bu maga mag la bo xamné bi véritablement bu ko mënoon régler avant les élections dinañu jàppale bu baax a baax a baax parce que nak aussi euh, suñu naatal moom yëpp a ko am di taal di jaay glace di def yépp jànke di chef lieu commune ci département Malem Hodar ñu toog ba heure bi électrifié wu ko lu ñu jaaxal a jaaxal a nañ ko fulé nak wax nañ ko président amna programme bu président jëloon nam ci cadre AFDS moy l'agence française de développement bobu mo warone financer ben ligne électrique boo xam bi dafa waroon a traversé complètement jànke dem ba njuum gerte li ci xawa a jaaxal dañoo toog ba gis déjà Dioup ñu ngi koy électrifier muy jëlee Ndiobène ñuy posé nak beaucoup de questions loolu tax indi nit ñi posé beaucoup de questions ndax ce programme là existe toujours ndax ce programme là dañ ko dañ ko réaliser ndax dañ ko c'est est ça suñ problème majeur mooy loolu. beneen problème bi ñu am mooy suñu marché hebdomadaire bu yalla ji tawé dootu ñawati fofu benn ressource parce que benn camion dootu fa ñemee jaar yoon amul. Nous bëggoon piste bi ñëw ba euh, si ñu prolongé ko mu jaar euh, Médina jaar jaar complètement marché bi aussi avons ñu complètement une ouverture directe avec Touba un grand pôle économique de façon très ramassée suis suñu préoccupation yu euh, ci parce qu'à la veille des élections législatives yi passé ñëw ñu wax problème séance tenante mu jël téléphone Mansour Faye wax la route euh, delby Delbi, automatiquement Mansour tontu une réponse favorable invité ñu ñëw Dakar le surlendemain maire le président conseil départemental de waxtaan ak Mansour 70 km, indi ko ñu def ko def ko

ba tey Malem Hodar dafa soxla ñu tabax le centre de santé parce que am centre de santé ni de nom parce que à poste de santé la la centre de santé xaw ci def ay réaménagement mais gens beaucoup am aussi un centre de santé digne de son nom de ce fait que les postes de santé mën di référer maladie bu baax a baax mën du am euh, euh, jumtukaay yi ci war ay radiologie ak yu kenn xamul yooyu yëpp ko am de manière que vous bëree bëree bëri Malem au lieu que muy ñëw ba Kaffrine mën nay Malem rek rek cas yu y a yi ci hôpital niveau 2 bi nekk Kaffrine am na daal pour électrification bi grand problème mhm. ak les pistes de désenclavement et la route goudronnée Delbi euh, Malem Darou Minam démarré Malem Delbi démarré Nous ñu bëgg aussi accélérer ki ki gagné Delbi euh, Darou Minam mooy nous ñoom it ñu ñu